xeeti tawat bu aju ci wàllum faiblesse sexuelle garabu kër gi day faj définitivement waaye laata ñuy jublu ci leeral njëriñul garab gi euh, ñaari at ci ginnaaw defoon nañu benn vidéo boo xam ne ba léegi nit ñi dañuy woote di ko laaj ngir yittewoo ko muy vidéo boobu ñu defoon ci poftan gi ngay binde aaya alquran yooyu nga xam ne dafa aju ci wàllu ubbeeku ci wàllu wërsëg bu yéeme lool te anam guñ koy liggéeyee mel ni lu jafe ba taxoon bopp taalibe yu bari doon woote doon ko sàkk ñu xamaloon leen le géej nañ koo liggéey ñu di leen xamal ne jamono ji paftan boobu liggéeyaat nañ ko ba fi mu ne jàppandi na donte ne li fi nekk bariwul waaye efficace na lool ci wàllu ubbeeku ci wërsëg bu yaatu lool ak wàllum kaaraange garabu kër gi nag day faj góor goo xam ne yàlla moo dogal mu néew kàttan walla kuy gaaw a yëg boppam wala koo xam ne xëy na na mu war a dëgëre dëgg dëgg dafa des képp koo xamante ne ni yitte woo na ko fépp fu mën a nekk ci biir réew mi wala bitim réew dina ci mën a jot ci kàttanu suñu borom tabaaraka wa taala livraison à domicile la ñuy def bu dee Sénégal la livraison bi moom euh, ñun ñooy fay ki koy livrer ci même jour bi incha allahu taala bu dee bitim réew itam euh, jàppandi na lool sax lu aju ci wàllu ñu nekk Europe wala ñu nekk États-Unis wala ñu nekk ba ci Afrique gi ñu nekk ñu ngi ko fay livré ci ay yenn ci réew yi kon képp koo xamante ne benn ci ñaar yi teel na la incha allah boo wootee ci numéro bi di nga jokkoo ak seen mbokk Mouhamad euh, mu mën cee jàppalante ak yéen ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. garab gi nag day faj définitivement dafay faj du loo xam ne danga koy jël tey ba ëllëgee soo ko jëlul doo ko gis waaye dafay faj traitement bi lépp day faj définitivement xam ne boo koy jël traitement bi lépp lañu lay joxandoo te ci diir bu gàtt la lay faj lu yees ñaar fukki fan ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mu'izzu ya muzillu ya samiu بصير يا خير مجيب دعيا صل بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل حكم يا عدل لطيف يا خبير حليم قد سقت حدايا للقبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا ملو معناي واللفيظ صل بلا نهاية وسلما على الذي أسري به مكلما سيدنا محمد والآل وساب في الحال وفي المآل مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل سل مسلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهب لي كوني